mooy lu ñëpp xam te luñ yàgg di kaas di ko dénoncé mooy euh, le littoral bi nekk fii cité jàmmalaay nit ñi nu ñu nekk di ko def donc nag ñu doon sàkku à ce que yëf yi ñu wax ko ba ñëpp dégg ko kilifa yi jot ci li ci jiitu nag muy président de la république du Sénégal ndaxte moom moo ñu yilif ñun ñëpp te coow problème bi am fii nag ci table am lay mujj te moom moo ko war a àtte lan moo xew mooy maanaam dañoo gis depuis quelques années ay nit dañoo am pratique yu ñu jël mooy maanaam ñëw fii ci suuf yi nga xam ne domaine public maritime la woon ay nit fexe nañ fexe fexe ba fexe ba soppali ko dañ ci am ay titre foncier ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk jàmmalaay plus de 40 ans ñoo am seen papier sax am ñoom génnagul mu jugee foofu kër yi commencé jóg fii naturellement ndoxu taw yi nga gis yu jugee Parcelles Assainies ak Nord Foire buy roogalaat fii lay jëm si ndoxu taw boobu di ñëw fii ñu gis ni kër yi da koy menacé bu juddoo ndoxu inondation day jàmmalaay fa la jëm lu tax mu fay jëm parce que état mi ngi investir ay milliards di lutte contre l'inondation tey ñu xëy suba gis ay ay projets yoo xam ni mën naa juralaat loolu waa cité bi bu loolu weesoo insécurité dafa am jàmmalaay à cause de travaux yi fi nekk agresseurs yaa ngi fi ampagaay la prostitution am na fi ba ñu ñuy tuddee sax ñaari tur ñoo ngi fi te loolu nag du yoon li koy indi mooy maanaam tefes bi nga xam ni bàyyi nañ ko mu nekk mu jaxasoo gis nañ fi ay charretier dañ fay def léegi euh, maanaam garage ay charrette fii yëpp yàqu na ñu ngi fiy dem àll di def lu nekk donc problème yooyu bu amee ñu gis ne suuf boo xam ni fu fu nit warul dëkk fii ñu taxaw ni kàmbala woon promoteurs yi ñoo daaneel montagne bi ne woon fii pour sëkk ko boo leen gesee doo leen gis suuf géej ay xeere fi nekk ay pneu oto ay débris yooyu loolu lañ ko sëkkee ak montagne bi ne woon fii ñun nag dañuy dénoncer loolu mais li ñu ci gën a métti mooy dañuy indi am pratique yu salte yu ñu am ay nerf yi la ñuy liggéeyal am na si koo xam ne nag duñ ko nëbb dañuy tudd turam ndax sonal nañu ñu ngi ko woowee Malick Niang numéro 2 ñu naan ko mbër turam dëgg Youssou Gueye la dañ koy wax ni ouvertement moom mooy nervi bi fi nekk di recruter ay nit di gëmloo nit ñi ne buñ ko joxee moom dina leen assurer ni seen travaux yi day àgg daaw ci koor gi jàppante na fi ay cité ay ay jeunes yu nekk te jàmmalaay ba ñu xeex ba police dafa ñëw gendarmerie ñëw la DSCOS ñëw sous préfet des armées di ñëw mooy ki nga xam ne décédé yàggul ñu ngi koy ñaanal si la génne arrêté tere képp ko suspendre bépp travaux fii ñu toog gis nit ñi continuer fii terminus Tata yi si ginnaaw bu ñun bu ñu ci taxawuloon kooru daaw immeuble jug na fa ñoo ci taxaw arrêté travaux yi ren tey nag naka bërki dem nag ab nit moo ñëw fii commencé naan de samp fii ñu taxaw nii ne daf fiy def kër ñun nag ñu ne loolu moom du fi amee ñu taxaw ci xamal ko ni fi nga nekk nii waroo fee tabax kër bu ñu la ko jaayoon sax yow boo nekkee nit ku normal nga sax yow war nga mën ne fii du place bu nit war a mën dëkk ci guddi ay nervi ñëw fi ñu woo gendarmerie gendarmerie ñëw nervi yi tas biig à vingt et une ñoom ëpp ñuy nit ay nit de fekk nañ wootente nañ ñoom seen biir nervi yi fii ngeen taxaw ci ginnaaw briques yi di réunion naan dañuy changer stratégie parce que ñoom leen lañ amoon intimider waa jën jaamalaay wala ñu ñëw fexe Touba yëkkati benn miir toj miir bi dem gendarmerie ne ay booy jaamalaay ñoo daaneel euh, destruction bien d'autrui pour jàppalu leen ñun on vit de ça depuis xanaa deux ans léegi ci yéegi loolu rek lañu nekk rawatina diggante kooru daaw ak ren dafa ëpp ñu sàkku nag à que képp koo xam ne jot nga message bi nga ci na ci état wax na ci autorité administrative wax na ci autorité religieuse wax na ci kilifa yëpp wax fii ñu taxaw école de football yi dañ fi nekk di fi pratique di def sport ASC yi fi la ñu nekk HLM Grand Médine ASC Jàmmalaay jeunes yi nga gis ñi nga ñëpp dañuy football fii géej buñ demee ba kër yi dafa dem ba nekk à presque huit mètres de l'eau ay pieds dans l'eau lañ fi tax koo ñëw ne fii sam pap moo ko moom ñu ne la yow nit ku normal du fi dëkk lool daal moo doon cadre yi ñu ko di yëgal nag ni nervi ñu ragaluñu bu fekkee ne ne ay menace de mort la armes yi ñuy doxantoo ci biir cité bi billaay wallaay taala amul kenn ñun koo xam ni ragal na leen dara luñ si bañul bañul ñu ko si na ci état jug le président de la république nag yàlla def na ni muy Bassirou Diomaye fay ñu ngi koy wax mu xool lii balaa mu ëppi loxo billaay wallaay ku ñu génneel fetal di xool xamal looy indi rek bul xam lu la fi fekk ragaluñu puusuñu faatu wax bi day leer loolu nag lañ bëggoon waaw hmm? ah, ah, waaw ñu ngi def ay démarches li ci njëkk la mairie de Yoff muy Seydina Issa Laye Samb moom ci boppam bind nañ koy courrier saisir nañ dem nañ fa réunion wax nañ ko li fi ne ba ci histoire nervi yi sax yëg na ko ndax biñ fi ñëw nervi yi da doon mbubboo turam dañuy mbubboo ni ay policier lañ mbubboo woon turam ñu wax ko ko moom ci boppam par le biais de bërki démb Ousmane Fall mu nga adjoint au maire bu dëkk Jàmmalaay woo na ma ne ma maire nee na dina fi ñëw def fi benn tableau bu interdit travaux dina ci boole ak arrêté ñu ngi xaar loolu. parce que fii ci ginnaaw épave ay bus ñoo fi nekkoon taxawaayu cité bi ak demande mu répondre suñu demande mu fexe Touba gars yi dindi fi. Mmh. waaw gars yi dindi fi euh, épave bus yi fi nekkoon ndax bandi yi ci épave bus yi lañ doon làqatu donc moom def na jéego boobu. ñu ngi koy wax nag mu bàyyi xel bu baax doléance yi ñu ko doon wax nu continuer nax lépp lu teg ci kaw muy saret yi muy ñiy defar fii brique li ngeen gisee waru yoon te loolu mairie ressortu mairie bi la. nee na nag mu ngi ci jéem on est de bonne foi dañ koy gëm ci li mu wax di ko xaar nag mu taxaw témb ci loolu leneen di si des autorité kilifa diine yi fi nekk yi nga kilifa yi ñu ci waxal kilifa diine ñu ngi leen seeti di leen ko waxal fii ñaari rakk murit yi fii lay am ñoom yëg nañ ko korité bi ak tabaski dañ ko fiy jullee mooy sérif yi fi nekk ñoom ñëpp yëg nañ affaire bi te ñoom ñëpp amul kenn ku nekk cité jàmmalaay boo xam ni ànd nga ci lii. man mii di wax ak yéen au delà de ma dëkk cité bi je suis le vice président du conseil de quartier li ma wax ça engage tu le quartier. kilifa laa ci wàllu boobu noonu parce que waa koñ bi ñoo def assemblée générale ne ma yaay suñu vice président kon su ma taxawee di wax quartier bi yëpp laa waxal amul kenn koo xam ne nag yaa ngi ci koñ bi di ànd ci lii. mënul ñàkk moom ay benn benn te promoteurs yi noonu la ñuy liggéey waaye nag ñu ngi taxaw di xaar ndax benn benn yooyu ndax moom ñoom ñooy mbooloo bi. loolu daal moo doon kàddu yi. lan parce que ah lijjanti rek lijjanti dugal xaalis lijjanti foofu lañ ko yaakaaree rek papier yi ñu yor fu ñu ko amee ne président audit fan lañ jaar ba biir papier ay impôt domaine nga ciy gis noonu lijjanti affaire bi naka la demee ba nit ñi jël ay foo xam ni nit waru faa mën dëkk soppali ko def ko ay titre ay nit yor loolu état du Sénégal président de république moo si mën a taxaw. mais pas ñun ñii nii ñun lu ñu mën dénoncer ñu bàyyi autorité administrative def seen liggéey audit yi mu commencé nii no xool lii xew fi impôt et domaine ci wàllum suuf bi xew fii littoral Diambalaya lan la te loolu lu mu gën a gaaw xeeb nañ ko parce que gars yi dañuy gaawantu di profité di clôturer di def di n'importe quoi pour lan ñi ñi nga xaar ay dédommagement ñi nga xaar leneen ñoom ñëpp ay système dóor la rek loolu kese la du leneen ay dóor ak ay lijjanti moo tax ñu defee Seydina Issa Laye Sam le maire de Yoff taxaw nañu réunion mun nañu man du ma mës a joxe autorisation de construire sous mon magistère fii ñi fi jot a nekk nag autorisation ñu yor ñenn ñi ay 2016 ñenn ñi ay 2020 yoo xam ni dañ ne Diouf Sarr ko signé te bul xam ni ñu def ba mu signé ko li ñu yor ñii ay de papier 2016 may laaj nag autorisation de construire boo xam ne ça date de 2016 ndax valable na 2024 wala nu nit yor ay 2000 ndax valable na ah waaw démb démb taxaw nañ fi gis kenn koo xam dafa génn bi ñu gis Diouf Sarr ma gis année bi 2020 ma ne ko yow yow nit ku normal nga foofu daal la yi nekk gars yi dañuy lijjanti. lii yàgg na de. 2000 non avant boobu lii coow li boo leen ko toppee Abdoulaye Wade ak euh, ancien président de la République ñëwoon na fi. 2003 ñëwoon na fi ndax coow amoon ba mu seet suñu benn yaay di profité di wax ni gars yi nañu bàyyi suñu turu yaay boobu ñuy jël naan ko mooy jël di monté booy monté kenn fii ñun waa koñ bi ñoo génn ànd ak ñun ñëpp. moom montewul kenn wax boobu nay leer léegi nag président de la république ñëw na fi. kan mooy promoteur yi am na ñu ciy xam kay am na ñoo xam ne duñu feeñ duñu feeñ mukk day am keneen ki ñëw naan man la mais du en la vraie personne doo ko xam. deneen minute nga ci kenn kin ci xam ki fi am fii ñu taxaw nii xam nañ ko bu baax te soriwuñ duñ fa nekk di tudd turam nag xamante nañ nanguwul nang moom nanguwul ñëw taxaw affiché wu carrément en public ñu ngi toog ko mais xamante nañ bu baax bépp nervi bu fi laal doomu jàmbur te nga xam ne moom la ñuy liggéey kon leer nga dégg moo fi ñëw demb kat kaatam ak ay mbokk la moo ngi dëkk fii Thierno Moulé Sow moom terrain fi ñu taxaw nii moom moo ne moo ko moom. léegi nag ñun ragaluñ ko de ragaluñ keneen ku dul moom nag yalla rek a fi ne fii ñu taxaw nag gis nañ fi lu ne armé nañ ay ay ay nit yor fetal yor jaa si ñëw ñu xam ne booy ragaluñ suul nañ fi ay bopp mbaam xuux ak ay dametu ay béjjën ak ay yu kenn xamul. te loolu ça date de très longtemps pour ñoom mystique day tax waa koñ bi daw pour ñoom en euh, euh, physique violence day tax waa koñ bi ragal. faalewuñ leen wax bi dafay leer lu ñu indi ñu indi li si top loolu nag na président lañ bëgg mu dégg ko mu jóg na taal otom ñëw Abdoulaye Wade bi problème bi amee daal taal otom ñëw réglé ko ensuite gars yi waat nañ ba indiwaat problème bi moom la ñuy wax mu ñëw en personne régler problème bi une bonne fois pour toutes lu ci promoteur yi bañul ñun bañuñu ko ci Iran Irak bi day metti rek ñu ak ñoom ok man Babacar Diagne laa tudd pour muy leer ñu bëgg a xam bokk ci conseil de quartier bi nekk vice président conseil de quartier cité Diamalaye Poste loolu leer na waaw kay.